mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir li ma métti comme à chaque fois ñëw yéen seen émission sama star suñu star seen star. tey nañu ci dara xale bu am talent muy l'enfant de Pikine Abakara bu ko defee nag dañuy bàyyi Abakara micro bi mu nuyoo avant ñu leen waaw ah, ñuy wax asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna di nuyu ñëpp di leen nuyu waa li ma métti. waaw di nuyu sunu soxna su baax si nga xam ne mooy soxna Khadija ñu lay ziare bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne maam fekk nañ si sunu liggéey di nuyu ñëpp nga xam ne ñoom tamit nam nañ bàyyi kër ga ñu leen di ziare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di leen fay bu baax a baax. Aba ñu ngi dolli ziar bu wér a wér Aba ginnaaw bu nga nuyoo pa dañuy dem ci sunu question. mën nañoo xam la moo la dugal ci sikar da nga ko dond wala da nga ko yàgg bëgg. waaw ndeysaan question boobu naa si sawar nag ndaxte sikar moom sunu borom moo ko def si man ndax daanaka dama daan dem daayira sax du ma bëgg sax sikar damay ñëw taxaw di déglu gaa yi di sikar waaw mu nekk loo xam ne sunu borom moom ma ko sol muy ñëwee nii naturellement rek ma koy ma koy dund ak yi daal waaw ñëpp bëgg ma ci nag ma si sant yàlla bu baax a baax. léegi nga commencé sikar. sikar si daanaka ba ma nekkee tout tànk ba léegi maa ngi ci mais carrière maa ngi ko commencé 2020 bii ni 2020 bii nii. waaw ah, janvier 2020 bii incha allah. ndax. mu ngi ci commencé ak léegi génne nga ci ay single wala génne nga ci loo ci loo ci defagum. waaw ñu ngi si sunu trois single incha allah waaw ah, ñu ngi si ñu ngi trois single nii ah, mu nekk mbégte nag bu baax si ñun ndaxte waaw Abba moom dawul waaw dawul day day day liggéey day liggéey bu baax a baax te bu ci commencé ba léegi est-ce que mës nañ laa invité fenn nga dem taxaw fa si kar waaw Lol moom wax deug yalla ñun ñoy xaarani rek ndaxte ci karsi moom waaw li sama grand frère bi doon wax rek papa yi kenn moom ko yaay kenn mom ko waaw ñoy xaar rek xamna ni moom inshallah allah programme yi ak période corona bi ni nga xamne ne fi nek rek waaw looloo tax. aba ñu bëggoon xam ndax Baye fa nga parce que gis nañ ndaxas bi nga def mi ngi baax bëgg def njañi fi ñu bëggoon xam parce que des fois dañuy gis euh, ñi ngi de dikki def njaxasam def laxasam ku xam ku ne xamna baat bi ñuy jëkk di ko teg ci bayfaal yi dañ leen di tuumaa lu ne bayfaal yi nii bayfaal yi na yow en tant que bayfaal te gis nañ ñaxas beeg takk njañi loolu noo koy dundee. waaw nekk na lu ma neex nag question bi nga ma posé nii ndaxte Sébro dama yee si nelaw sol ma ay eeram ma woy ko mu génn si euh, màggal gi nga xam ne mooy màggal Tuubaa ji njëm mu nekk lu ma neex am na fi may naan bayfaal yuuxul te xaacu. Baye Fall dafay xaaju ñun waru noonu nangu ñu ñuy dëkkal fu ñu dëkkul ndax Baye Fall moom noobul la te Baye Fall dafa war a set sulucé ba fu mu taxaw rek ñëpp jox ko cër Baye Fall mi nga mooy ki nga xam ne tey maanaam bu ñëpp bañee moom mooy nangu moo Baye mooy ki nga xam ne tey maanaam xolam dafay laabiir ba képp ku mu nekkal rek waaw ñu xam ni kii nii kat Fall mooy jàmbaaru waar wi waaw koo koy Baye Fall mais yow ni nga ko jàppee am ñu ko jàppee woon parce que am na ñoo te dañu naan bay faal du julli du woor ñun baal ma ci kàddu bi te bu dee dem àgg na seerafaal moo koy est ce que loolu la faa digle. waaw loolu ku nekk ak dimension bi muy dawee ndax chèvre moom kooku dañ koo mbay yàlla mbay yàlla képp ku mu àndal te nit ki defe naa ni booy ànd ak nit ki maanaam gëm ko dëgg mu dëggu si yow ah yaakaar naa ne warul warul def dara nga xëy bàyyi di defi leneen de ah foofu laa ko teg daal. mais yéen seen seen Ibra boobu ngeen di topp moom dafa liggéey sëñ Tuubaa ba yàlla xëy na jox ko lool yéen pourquoi pas mënoo leen def loolu mais moom diglalu leen ne bu leen julli bu leen woor mun ngeen di julli lu ngeen di woor. waaw xam nga terrain yi dafa bokkut te te boo nekkee ci biirum Baay Faal nekk ci yoon bi maam yow doo am sax maam jotul di taxaw di julli. ah déedéet julli bi ci la bokk. si li ngay nekk mooy gën a foor lool waaw ndaxte maam. nekk ci ndigal te xam ne li ngay def nii di togg ay ñam di ko jox jaamu yàlla ji loolu moom daal daa gën foor daal. yaa ngi def loolu. waaw ñu ngi ci bu baax a baax a baax ndax nit ki moom waaw lépp li mu am rek da koy delloowaat doomu aadama yi loolu laa gëm man man abaa. abaa daal su ma ko déggee kon jàpp na ne moom bokk na ci Baye Fall yu julli ba tey ñu des ci sa carrière abaa tëgg Baye Fall yu mag wékkatu yu mag yi nga xamante ne yéen a bokk milieu bi ñoom ña nga ci sekkal am na ñoo xamante ne war nga sekk ak ñoom joxante loxo. waaw jàmm ji moom day sax moom day sax. waaw ba côté jàmm ji nga xamante ne ñu ngi lay jàppale wala am nga ak ñoom benn complicité. noonoo amagul nag waaye nag wax dëgg yàlla bëgg naa ñoom ñëpp ñu am ak man jàmm ndaxte sëriñ bi laa fi nekkal te ah, gis naa gars yi ni ñuy defee ni muy rafetee mu Mouhamed Niang dama ko naw ndax lu tax man naw ko mooy. maam fay jël wax waxu mag ñi diko jox xalé té te jamono ji ni maam pour nga dimbali jeunesse bi foog nga leni wax li tolloog seen bop ah, Papa job Muhammad Ala job koku sama sama sama rakk la ñun ñaar ñoo foowandoo Pikine ño magando mu ñëk ma def carrière nak te yalla na yalla rafetal yonam waaw ñu ñu sék jamm nak lol lol lol may ñaanal ñëpp jamm man dal nañ ma japp ngir sëñ waaw mais war nga ci am idole ko xamanteni ci mom ngay roté ci mom ngay roy bu génné da nga naan ki kat machallah ci mom lay dék samay loxo. wa am ci idol idole nag. kan la. mbër gu sar sama mag la sama sama sama sama xarit la té nit ki mom ragal fété day day wu wësëg mbeur gu dama fété ak mom ndax ay éram damay dugg tay bu doon jang fi ni duma mëna taxaw fi waaw moo tax ma wax la sànq ne la man damay préféré di taxaw di leen déglu ñoom que pas man ma ñëw di sikar mbër daal ku ma naw la moom si yoon bi wax dëgg yàlla ndax li wax teg na ko ci yoon. macha allah ba tey ñu ñëwaat Aba tey jii buñ la doon wax tey Aba ban ci ñoom ci artiste célébrité kan nga pare pour def ak moom duo pare est-ce que pare nga tey buñ la jëloon nga def ak ñoom duo. bari ci mel ni kan. Euh, bari na lool lool lool ndaxte maanaam ñi ngi waajal duo ak Mambay Laay danoo amagul yoon bi ñi ngi waajal duo Mouhamed Niang ñi waajal duo bari na daal ay ñoom Papa ñoom ñëpp ñoom Mouhamed Ala Diop ndax te man damaa gëm ni yoon bi maanaam du Sénégal Sénégal fii nii li fi gars yi doon def si sikar yëpp maanaam daanaka def nañ ko waaw man damay viser sama bët bitim réew ndaxte Fofu noonu ñoo ñoo xamagul li xew mais fi ni mom gaay xam nañ li xew et sha allah ñu ñu ngi si liggéey bu baax nak wax dëgg Yalla ñi ngi liggéey ay album ñu ngi koy liggéey bu baax baax baax baax waaw. suma diggé sa biir wax dafa da nga ni paré nga pour def ak dio ak mambay Mbaye ça veut dire que aba dafa yaatal li def paré na pour dio ak bép tarixa ak bép musicien bu ñew aba paré na pour def ak mom dio waaw surtout lolu sax té diiné ji dafa yaatu du mourid du tidiane du hadd du layen sunu borom la. ndaxte tey boo taxawee ne man damay woy kii duma woy kii maanaam dafay nduru leneen te ngeen jëm benn yoon muy suñu borom waaw am na benn son bi may waajal nii sax si gàmmu gi maa ngi koy woy sii bi ay dara duñ si jógee ñu ngi waajal son wu Serigne Saliou lépp mu doon mbégte rek ndaxte ku si nekk ñun dañuy am ak jàmm ñépp ñëpp ñi nga xam ne ñoom nañu ñoom nañu ñoom nañ nekkal yaa ngi maanaam adduna bi yaatuwul yaatu goo xam ne ku nekk war naa mën a di xëccu di jëm fen wala di jëm feneen maanaam nañ jëm ci sunu borom rek. waa Aba bëggoon nañoo xam instant bi lan mooy ay projet Aba jamono ji ñu waa projet yi moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci kawam quoi nekk na génne ay single waaye en même temps tamit ñu ngi liggéey album waaw ñu ngi liggéey album album bi moom xam naa bu sotee moom incha allah Sénégal dina xam dëgg-dëgg. Abakra quoi. est ce que mos ngaa dund tey nga dem programme pour woy ñu nangu micro bi ne la jugal fi xamoo dara wala indil micro di la ko siis est ce que mos naa dal ak bu fekkee mos naa dal tamit noo ko dundee woon. waaw loolu moom sant la wax dëgg yàlla ndax ni mu nekkee sant mooy après da xam loo sa bopp rek nga gën a gëm sa bopp. dal nañu dañuy commencé ay ma daal commencé ba commencé dugg ay air sax ñu ñëw wàccee wàcceeloo ñu cant gi ñu wàccee tamit def ko sant rek waaw mu doon loo xam ne nag day metti ci xol waaye macha allah daal moo lay moo lay def après waaw ki nga doon daal. abaa loolu mos nga cee xuloo moom wax dëgg yàlla moom mosuma ko see def ndax sant rek laa def ndax dañ ma doon motiver quoi. abaa bëggoon nañoo xam à part sikar si abaa ci lan lay yëngu. waaw abaa moom téer la quoi maa ngi ci maa ngi ñaw wax dëgg yàlla maa ngi ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax. si wax alhamdulilah. man maa ngi doo a gis Baye Fall bu nekk euh, Baye Fall bu nekk tailleur c'est la première fois ma gis ko est-ce que yàqalu la ci dara. non loolu moom wax dëgg yàlla mbubu la booy sol rek boo nekkee ci atelier bi sol ko booy dem cant tamit sumbi ko bàyyi ko atelier boo demee cant tamit cant li nga war a cant après waaw moom la demee daal. Aba 2020 bi nga commencé sa carrière Aba tey loo indil waa li ma metti tey tey lan nga ñuy may nga indil ñu ko. waaw yéen li ma leen indil bari na de wax de yalla ñamal ñu ci. fab sama khalima di way ci yow araf bu teew rek ma xeb ko da fay ndaw ligay waral moy mbegel gu yaatu bi ma am ci yow ba bes bu nek muy gën di way di gën law démb la woon booba teewagunu fii si daaray duniya si nanu bindoon ni yaa teeru bu ni teew ba feetu ba gisagunu woon si nan daan dégg gaañi di way naan kara ndakate booba mooy généralu mbar doomi maam jaara yow noorey ni mu mariyaama Di sunuy baay ci ay jamono reer dina yombu dal ko amul weruai. te ñongi ni sa pegg wéeru billaahi de ger ga werna Cheikh Madou Bamba ku ko xasa billahi billaahi sa jambar jamatna na du jant la leer di roote Ousmane di bag ba baatin ba ca noonu la xoote yaa nu xamal ni yëngal na aras kuy wër bamba ba dem ci maam cerno laaj ko mu wax la kuy wër cerno ba dem ci noorey ni ñaan ko mu may la kuy war noorey ne kuy war noorey ni Ousmane ba seexi mu mamaree ma ni jamit bum la jaaxal waye bu exé gisulo bamba kon du moom rooti waatal waaye bu exé gisulo bamba kon du moom rooti waatal macha allah macha allah fi talent bank ta xamna ne ku la da ngay dem ci kaw ci kanam yalla yalla wëral bad bi te gën la jappalé inshallah allah abaa ñu bëggoon nañu xam ban studio nga nekk ñu ñoo lay jàppale. waa studio bi waaw One Way la ñu ngi nekk biir pikin sama mag nekk fa di ma jàppale di daw si man ku dégg bëccëg wax dëgg yàlla lépp lu mu am rek mu ngi koy def si man ma ko si sant bu baax a baax a baax a baax man xaw sax studio nu muy demee damay ñëw rek taxaw si kar waaw loolu rek laa xam ci studio wax dëgg yàlla. kon tey xam Aba boo doon ban message ngay sa mbokk Baye Fall li nga xamante ne ñu ngi ci milieu Sikar bi di Sikar te sa concurrent yi tey boo leen doon wax tey looleen di wax. waaw Sikarkat yi ma leen di dénk set sell ci biir ak ci biti te di leen wax ni maanaam nit ki moom amul lenn lu dul sëriñam te sëriñ bi moom. maanaam war nañ foo xam ne fu bu ñu demee ba defa teew rek war na noo xam ni kat maanaam jëmmi sëriñ bi mi ngi ci ñun ndax maanaam nekk si karkat ñëpp di la déglu dafa dafa dafa gën a wóor daal daa gën a wóor ñu set bu baax a baax a baax ñu sell ñu def lépp lu ñuy def rek ñu defee ko yërmande ak maam waaw xel mu dal daal te xam ni daal maam yoon bee ngi sunu kanam daal waaw. ak surtout màggal gi ñu dëpp nga xamante ne ñu ngi ci weeru màggal gi Baye Fall yi nga xamante ne mën naan sax dañu déguisé woo turu Baye Fall. ñoom ñëpp déguisé pour dem bàyyi Touba tey loolu leen di wax tey ñoom ñoo ñu ngi dem Touba te duñu sax bàyyi faal mais ama Touba moo woote sëñ ñëpp la ñëpp la donc ñoom loolu leen di wax tey. waa Sébra dafa am wax bu mu waxoon mu ne bàyyi faal bàyyi faal dafa am bàyyil faal dafa am ak faal bàyyi la ñett yooyu noonu dafa xaw a ute nag. waaw nekk bàyyi faal nag daa gën a wóor te ñi nga xam ne dañuy dem foofu noonu ñi ñi ñiy raasi déem ah ñu xam ne rek dëkk boobu noonu du dëkkam raasum déem te xam ni sëriñ bi mu ngi fa te mu ngi gis lépp waaw am na ñu mat ñum fa teg nag wax dëgg yàlla boo fa nekkee nekk ci leneen tamit maam ñu def ak yow neneen rek ndax waaw sëriñ Tuubaa moom amul moroom wax dëgg yàlla ñu ñu ñu gëm seen bopp rek te dem liggéey def seen bopp dëgg-dëgg Baay Faal waaw te Baay Faal nag daa yombul nag waaw. Abba sa sikaru mujj bi nga génnee est-ce que mën nga ñu cee may tuuti ñu déglu ko. waaw loolu war a mën a nekk la. Ahmadou Fall seen Njaay. biram njëbbi maasa ngaay góor dëgg baayu lalla cheikh ibraay aboori jaal yaa njëkk a joxe sa xol fekk nga gaayi xorxoral sunu maam seera faal garmiya yaa tax nuy texe naka nga jóg daadi di dëggal kow sa bor dun ko mbugal sunu maam seera faal mooy baabil xullo bay faal yuuxul te xaacu bay faal dafay xaacu ñun waaru noo nangu nu nuy dëkkal dëkkul bay faal dafay civilisé te jege sunu borom te saf si moom sàpp kenn du maam seera faal macha allah macha naa leen talent baa ngi fi baat baa fi te ko jàppale ne aba man boo continué di sekk damay leer fii ba yi sama yaram bi fu mu toll nii lépp a nga tuubaa macha allah abaa sa dernier mot lan la tàggatoo waa di sant sëñ Tuubaa di ko santati di ko sant di ko sant saa su ne di sant suma waa kër di sant sama ménageur ma Bamba di sant Cheikh Cheikh Kayre may sant sama yaay di sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax di sant sama papa ba mu njëkkee dégg sama son dafa jooy mu nekk loo xam ne lu lu rëy la si man may sant sama taawu yaay soxna Mariam ak Assou ak maam Thierno ñoom papa Khady ma leen di béggee bu baax di sant soxna mama mama Sarr sama mag la di sant Noreyni bu baax a baax may sant ñëpp nag kulluhum di sant waa mi fa salaam ndax bu ma duggee foofu rek maanaam xuus naa si ñoom ñëpp waaw may sant sama bàjjan di sama yaay Kumba Sarr moom sama bàjjan la sama yaay la di sant sama yaay bopp tamit muy tàmbee ndax te yaay la si man tant la ci man ndax fi ma féete la waaw di sant samit abaa tamit est-ce que tamit doone maa ngi sant ñëpp rek boo bëggee wax ko maa ngi sant li sant li tamit dafay nduru ko da nga juum de te koo ko fi santul dina la ne ah abaa nga toog plateau santoo ma neel maa ngi sant leen ñoom ñëpp waaye bii laay mujjee muy sant sama tànt nga xam ne sama tànt xol la may béggee ñëpp képp ki nga xam ne mi ngi béggee Abakara surtout ma groupe soppe Abakara bi maa ngi béggee ñëpp ku loxum Pikine nanu gëm rek waaw li si kanam raw yi bët macha allah Pikine tamit yéen a ngi bëgg a lu yóbbu lépp na mu ngeen ne ndaanaan yëpp foofu lay jógee tamit waaw mbokk yi gis ngeen leen leen indiloon teg seen bi émission sama star ma ki doon ànd ak Aba Karasa doomu Pikine gi tey gis ngeen wàcce ne plateau ba zéro di ci ànd ak sama caméraman bu ñaawal bi Modou mbàkke di ko ñaan nag yàlla na ko yàlla wéral soj bi di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen star peace and love ba beneen yoon